yaa Youssou Ndiaye mi Marie Ndiaye fa Demba sama doom la maa ngi koy kontaane Marie Ndiaye maa ngi lay bëggee ah baax na Youssou man daal soo ko doon yokku tey bi ñëw waxtaan ak moom soo ko doon en tant que artiste ah, ko yokk dara ah ko yokk dara loolu ma naka li muy def ah li déglu ko sax dax miti ah kenn xamul li lan la ah kama sa gis ah li kenn xamul lan la ay am na solo léegi euh, fi toll nii ki ñu am ni toog ci plateau bi euh, mooy Khadim Temps euh, ñoom Ibro Naajo yaakaar naa ni ñu ngi fii ñoom El Hadj Keita mm, xale yëpp a ngi fi euh, tabarkàlla kenn par kenn rek ñu daal di koy doxal euh, programme bi day continuer ba ci kanam ak kanam ak kanam. donc Khadim Temps maa ngi lay nuyu sama waa ji Khadim. maa ngi lay fay. la mm-hmm. siyaare di nuyu sama xarit bi. di la baalu àq. Mm-hmm. ndeysaan di la baal mm-hmm. ngi nii de. waaw la nga roog yow yaa kii moo fi way ay wayu foor. way kii lu mu génne it la. waaw kii dama daan dégg turam xaadim tàllu ay waay ay na ambiance te fii la ambiance war a am waaw man xam nga mm-hmm. man bu nit toogee ci plateau bi damay am lu muy bëgg waaw ndax ndaanaan ah, day ñeme jam-jam mm-hmm. doomi gar mi day ñeme jam-jam te mm-hmm. moom mi yaakaar naa war naa mën a ne der ñu xool fan la taasu taasukat la tey ji day dugal moom di taasu yow nga koy til tan mën ngeen def di yokk na dëkk bi joxe loxo dëggal li bul toog ci mbooloo bul wëri ndaaje toogal sa kër ndax ko sëñ bi docteur bi digle buñ ko defee buur bi mën nañu musal nga eh, yàlla booy tisuli ndel nii déedéet booy sëxat ut sa musuwaar boo paree sànni ca mbaalit maakat loolu moo lay aar ay waay eh. na loo set na set a set bul sëxat ci mbooloo nga sentir nga corona bul ju fi nga toog wooteel ci 15 15 ñu jël ci la yaram bu tàng gaaw a sonn dëkk sa kër wooteel ci 800 00 50 dem ci Xaadim temps xam naa ni di nga nuyu eh, waa Sénégal baalu leen ak saafonteeg ñoom eh, ma soog a dugg ci ñeent ci say way eh, ba fi nga toll nii nuyoonte la réew mi ba noppi waaw waaw mm-hmm. maa ngi nuyu Sénégal yëpp di baalu ñëpp àq di leen baal ak mm-hmm. di siyaare ñëpp di leen ñaanal jàmm ah di nuyu nag Papa Diop mi nga xamante ni moom ma solal mm-hmm. ak euh, waa Géejawaay lan la la ñawal nii caay ak jàmput non caay booba dafa am grand bubu man man tamit sin ko loolu la ma ñawal ngaay bi ma jàpp ma tëf ne nday sekk loolu la ñëw di damaa sumi grand bubu ah, dina dina xalul kenn <laughs> ah moom dang si dellu yam rek nga ne nuyool nuyool bu ko déglu di nuyu Géejawaay gi yëpp mhm. di nuyu waa Ouest Foire di leen wax nag mois de novembre bi maa ngi wàcc Sorano mhm. insha allahu rabbi di ci woo Sénégal yëpp mhm. di nuyu nag sama mbokk comédien yi ñi nga xamante ni man dama leen a bëgg man moom dama leen a bëgg. ndeysaan ndeysaan samay ñoom ñëpp samay xarit lañ. Mm-hmm. di nuyu nag artistes yu sénégalais yëpp. Mm-hmm. artiste képp kuy artiste dëkk Sénégal ak foo ti dëkk ci àdduna. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay. di la wax ni nag def naa morceau bu bees tàkk muy Baara Mbay. ndax danoon na mu yooyu. danoon na mu ci ñëw léegi faaw ma jaar ci yow tuuti tuuti euh, fa xasalu ci yoon wi nga jaar ba yegg si fii. waa Facebook bi Facebook dañu may envoyé SMS Facebook yëpp dañu ko bëgg mees te ñu ma ko wax ni Facebook bi dañu ko bëgg parce que day duggaat fii di ruubee ak di yàq fii en tout cas Facebook bi nee na ñoom moom mooy seen artiste donc ne ko ñëpp xam rek ñu xamee ko noonu du yow de Baye euh, du yow billaay du yow Baye du yow billaay non non kenn waxu la du yow ok du yow euh, tey jii euh, njëkkoon nga fi way sa série lu la jaral nañ ci non non mën nañ ci fo tuuti par tuuti rek nga ñëwaat. waaw loolu nag. dama ne sa séeréelu mu la jaara la cestaare maadare la cestaare maadare wuy kor na door wiire xoolal kenn xam na sa loolu la wax sa séeréelu mu la jaral nga bàyyi yaay bàyyi bàyyi heure bu xiifee nga tegal ko mu añ ba suur ah loolu dara loolu dara ñu pare foofu nga dem ci sone daw sone daw ne Abba. kër gu nuróom bu sonee daw dooxal naan ko te te te te te dooxal ah, ah, ah rek jar ñu pare foofu nga dem ci euh, boobu nga way góor day dëgër mais dafa am baat boo xam ne daf ma ci neex daf may daaneel ba bu may andi bëri mboo ko jub sëy nee ko beñee ko gën aw ma ci mbokk aw ma ci xarit sa beñee ma sa xale yi léegi fa nga ko wayee mu baax ndax da nga fekk xale yi mënatuñu beñee beñe yi safatul lewir beñe yi xale yi tàpp taxañ nga euh, bu njëkk dañ daan jël beñe teg ko jël farine bi dër ko dër ko ba beñe bi def ci lewir ba beñe bi day junki ah beñe ajara day nooy ah loolu mooy beñe ajara ah loolu mooy beñe ajara aba ah mi dara daa lépp léegi bu njëkkoon jaaykati beñe yi boo leen rombee dañuy ñaxatooy xib waaye beñe yi léegi acam kama sa gis mais aba son bi moom yow beñe bi rek mu nga santé parce que euh, boo amee borom kër ah. da nga koy toppatoo dëgg la di ko jox lekk ak añ ndékk ak añ ak reer baax na mais xale yi dafa tunu njogonal te njogonal dafa am solo ci sëy ah, njogonal daan tee sëy ah, bañ a tàkkusaan suy ci suukar waaw ah, xale yi tàpp tàppal ko li yàqu ci réew mi bari na tàpp ba baax dër ba na baax dër ba abaa dinaa la may dayaa lenn pour nga xam ko gis nga potu sambul abaa potu sambul bi mu jógee ci réew mi lay monté as ñëw lan potu sambul bu xale yi bu ñu leen daan ci botu sàmm daan dagg seen digg kenn na daawul monté ans ah kay <laughs> ah li may ah waaw xam naa a ah da nga daan judd amee ans léegi nag botu sàmm li ñu arrêté moo tax ku judd am ah, ma monté ans ba xam naa li ma la toog ci botu sàmm ah toog ci botu dagg seen digg ah, ah, li ma wax ah yow bàyyi ma ah yow ah booba ah ngemba am ngemba am laytaay ah ni dagg seen digg li moo tax boo boo xam mu def Ah. waaw yaa ma gën a xam waaye léegi danañ ñu ci sa mbalit ma ah. loolu tax xale yi amatuñu as yal moom daal yàlla si jàmm yàgg ah wax ni am na solo am na solo wax lu am solo nga ni lan nga génne ban sam oto <laughs> sàmbal mu jógee ci réew mi la as ñëpp dégg nañ ko de ñëpp dégg nañ ko waaw baax na xam nga aba jigéen jigéen dafay nooy góor luy dëgër mhm. dama ko way mu neex ñëpp mhm. yow it nga ñàkk ñaan loolu def ci lu doy waar yow sama xarit nga waaw yow lu ma génn dañ ciy sonn moo tax nag man fu ma mënti toog ci àdduna dama naan avant maa gërëm kenn damay gërëm Abba parce que Abba sama morceau yëpp da ciy jàpp mhm. Abba képp ku artiste da ko war a ñaanal jàmm mhm. Mhm. parce que moom mi bu amutoon dana ñaaw de baax séeri mami dana ñaaw toog fii nag tey wax loo xam ni peut-être raar na ci ma koy wax mais artistes yi nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a siiw ñu bokk génération man ak ñoom su ma juumul sama plateau la njëkk a feeñe dëgg lim nag dinaa xalaat tuuti suma ma juumul El Hadj Keita su ma <laughs> su ma juumul ak Sidi Diop Xaadim Tan Bas Cung maa leen njëkk a invité. ci plateau. te télé télé te télé yi ma jaar ak bi ma leen invité. dama ne woon àdduna nañu bàyyi xel xale yi. ndax dinañ leen dégg. xam nga lu waral loolu. Mm. sa xol. non xam nga lu ko waral ak Ibro xam nga lu ko waral waaw. sa yaay ba muy def lu baax kat booba lii xewul abaa tasul fayul te ñibbiwul kenn jëliwu ko nga juddoo ni nga juddoo màgge ni nga màggee jëfe ni nga jëfee bëri faay de kenn yabagu la abaa sa yaay da laa gërëm sa baay da laa gërëm te doom ju ndayam gërëm ca biir kër ga kër du ah. ndeysaan ndeysaan loolu am na solo abaa singal la Youssou Ndour génn loolu am na solo loolu am na solo xam nga euh, sawaay mm-hmm. li lii abaa wax nii li ma ci li mooy. Hmm? man bu ñu toogee fii wax ci moom faw ma wax ci. dëgg la xolam dafa rafet. ba dafa juddoo ci banlieue bi. yëmbal la juddoo hmm. xam na li nga xamante ne nii mooy doomu aadama bi valeur bi ne ci moom. Hmm. parce que àddina bu fekkee yàlla def na nga doo am talent wóolu sa talent doo soxore kenn parce que bidon boo gis lam def la saañ bay xeeñ. te nit ki nga teg ko loxo wàññiwul dara ci sa li yàlla def ci yow. doomu aadama dafa war a gëm ne li yàlla dogal ci euh, ci àddina mu war a mu war koo jot doomu aadama mënu ko kaa xañ boo ko boo ko gëmee rek koo gis da nga def comme sa bopp yow nit ku baax nga man waxuma la pour neexal la de wala ma lay wax nii yàlla moo dogal loolu yàlla na yàlla defal la jàmm nga jàppale du artiste kese ñëpp rek ñëpp rek ñëpp rek waaw na góor jàpp ci góor rek na góor jàpp ci góor rek góor na jàmm yàgg tàcc euh, bis bi ay ca su paree rek nañu jugal ki nga xam ne mooy xaadim temps mu dem daal di yëngal ay ca bàyyi la ilaha illallah tey ma bii gi leen I'm ayca tey jii euh, nañu lay bàyyi taxawal foofu foofu nga nekk baax na euh, santal gërëm gërëmal ñi nga bëgg a gërëm wax ñu say projet aba ah waajal hmm. waa baa xanaa di kontaan ci sénégalais yëpp hmm, hmm, di kontaan nag surtout waa waa waaye gi nga xamante ni wax dëgg yàlla seetaanuñ ma benn yoon di gërëm Aziz Misaan Sarr séeri bii bi ak maman mi nga xamante ni tabaski bi ñaari xar la ma jox Abdoulaye Jigo borom Pikine xam na ni Géejawaay laa dëkk waaye mi may jàppale ci côté bu ne di nuyu Pérési ak Basirou Faye Pérési sama bi nga xamante ni moom dawaluma dara ba ñu ci man dara ak Basiirou Faye sama waa ji maajoor géejawaay gépp ku lim juum parce que nag tabaski bi avant tout di baalu ñëpp àq. Mhm. di baal ñëpp àq di ñaanal ñëpp ñëpp jàmm di dem nag ba ci waawoon pël gi nga xam ni falaa ju falaa jullee tabaski bi sama kër yaay falaa juddoo falaa jullee di nuyu waa Tiwaawoon pël gémm ku lim da ngay juum du nuyu Maguette seeri Binta Adama Sarr du nuyu nag Ibro Naajo frère morceau bi nice na yàlla na la yàlla defal jàmm ci barke Seydina Mouhamed. Aba dafa am loo ma laajoon TFM. waaw fële. bàyyi yaay dama la ko waxaloon ci joolaa ak lan. waaw ak euh, am na yeneen làkk. américain yoo ko waxoon waaw ak tubaab ak français ak lan ban nga ci bëgg. indil bi sa sa làkku sama làkku jabar ami jéembe. Ah. loolu bëgg ndax ay joola ami jéembe lu moo daaral. xanaa ukkati paamoo ne. ak lan ukkati ñaamoo tamit nanoo sànga wange daar. <laughs> ay jaxarita ñu ngi koy kontaane bu baax a baax a baax a baax wax naan DJ Mili à tout dama lay yëngal nga yëngatu def ambiance. lu sunu lu mu way nga ni ayca. السكر